شكري لرب كريم كان شاكرا وأرتجي منه في الدارين عبكرا كتبت شكرا له ما قد رجوت بيعي كوني سعيدا وشكارا وذكارا وجات وجهي في سهر النبي سنادي للأكرم الرافه الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكره حمالي salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit di mbokki taalibe yi ñoo ngi toog fii tey ci kanam ku tedd ki Cheikh Mamadou Lo yàlla na fi yàgg lool te di waajal bisu xasaayit bi nga xamante ni moom la nu baaxoo amal at mu jot di ko defee fii ci ngaabu di ñaan ku fi teew ku ne muy safaj ak aajo zahiran wa baatina di ko yëgal sunu mbokk jànkate alquraan yi yi nga xamante ni lépp lu sëriñ bi daan def moom la ci daan jiital moo di bëggam moo di fàggu téefam ñu ngi ko yëgal mbooleem fu daara nekk mu teewi si bis bi ñëw jàppale nu ci njàngam alxuraan mi ginnaaw bu loolu woyeet ñu ngi ko yëgal mbokki jàngkati xasida yi mbokki jàngkati xasida yi nag bu ñu ko waxee képp koo xamante nii rek day jàng xasida moo xam da koy kuréel wala mu koy yëkkati benn benn sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwut kenn bàyyiwut mag bàyyiwut ndaw di ñaan ko fa teew rek mu doon sa pajuk aajo zahiran wa batinan yéen mbokk jullit ak mbokk taalibe yi ñoo ngi leen nuyu turu Cheikh Mouhamadou Lo dañu ñaan mu yàgg fee loolu te wér ba lépp li mu bëgg a liggéeyal borom Tuubaa suñu borom tabaaraka taala tëbbu kàttan gu ànd ak tawfiq ba mu defuñu kawe njot ñu ànd ko ak moom sëriñ mi ngi leen yëgal bisu xës bi nga xamante ni at mu nekk baaxoo na koo amal fii ci Ngaabu mu bisu xës boo xamante ni da koo def ngir sant borom Tuubaa ngir sant yàlla ngir sant yonent bi sallallahu ci jàng alxuraan ak jàng xasida ak bernde ak gàttandu màggal Tuubaa gi bis bi nag sëriñ bi mi ngi ko jàpp àjjuma ju njëkk ci weeru safar dëppoo ci weeru tubaab 25 septembre mboolem ñi nga xamante ni jàng alquran ak jàng xasida ak kilifa diine yëpp ak kilifa àdduna yëpp rek sëriñ mi ngi leen yëgal bis bi fas ko ànd ak yéen ci alquran ak xasida ak bernde ak waxtaane baaxu sëriñ bi bis na programme nii lay tëddee buñ xëyee 8 heures ba 10 heures danaan dalal ak ziyaar bu ba 10 heures ba midi dana amal jàng alxuraan ak jàng xasida bu ba midi ba 14 heures dana amal kuréel xasida bu ñu demee ba 14 heures jàpp 15 heures dana amal julli ak bernde bu ñu ba 15 heures jàpp 17 heures dana amalaat durus ak jàng xasida bu ñu demee ba 17 heures jàpp 17h30 dana julli tàkkusaan bu ñu demee ba 17h30 jàpp 19h30 dana amalaat njàngum xasida bu ñu ba 19h30 ci lañ amal cérémonie officielle bi mbooleem ñi nga xamante ñi ci biir baas ak biti baas bi sëriñ bi mboolee soññi leen soññiwaat leen seen digganteeg seen borom soññ waa leen seen digganteeg sëriñ bi ñaaxaat leen kenn ku nekk fa nga mën a jëm nga mën faa nekkee bëggu yàlla ak bëggu yonent bi kon ñoo ngi ñaan képp ko yaa ngi dégg suñu kàddu rek nga xam ne kàddu gii di may kàddu gi nga kon képp koo xam teew na fa ñoo ñaan suñu borom tëbb la kàttan gu ànd ak tawféex barki xaside yi woote nañ waaye wuy siin wi dana dana soppiku képp kuy ñëw ndigal loolu la xamante ni xalifa général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe na ko ci képp koo xamante ni da ngay màggal si màggalu Touba noonu mu wootee nañ ko wuy see sëñ bi tamit noonu la bëgg nit ñi wuy see ko ko ci bisam boobu kuy ñëw li nga xamante ni ñi nekk ci wàllum wér-gu-yaram ñi ngi koy digle ñu sàmmonteeg sart yooyu ñu fas yéene takk masque yi loolu ñuy wax alcozel koo ko ci mën yor nga yor ko képp koo xamante ni ba ngay jógee ba ngay jóge sa barab xaj na da ngaa fàtte say masque yooyu boo ñëwee des na ko fàggu teg ko ci buntu baas bi boo ñëwee nga sàmmonteeg teggini rek ak ndigal yi ba lépp luñ fi digle rek nga fas yéene koo jëfee kon ci joxe masque nga nga takk ko fas yéene sàmmonte jëfe ndigal yi bàyyi tere yi fexe ba euh, def bis bi ceeg ci nim ni ni ni mu gënee bañ cee weranteek kenn bañ cee juwoo benn ndigal nga xam dana am ñu nekk ci buntu baas bi yor lépp loo xamante daa jëm ci wàllu cet ngir bëgg bis bi yéwén kon nañ sàmmanteeg mbir yooyu sëñ bi mi ngi soññee bu baax di sof kàddoom rek ci kàddu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaanam mu yàgg fi loolu te wér di wax ne ñoo ngi koy waaj bu baax di wax ngeen waaj leen bu baax kon daal ñoo ngi waa kër docteur lépp loo xam ne digle nañ ko rek sëñ bi neen mi ngi koy feddali bu baax ci bis bi. ñu ngi siyaare sëriñ bi ñu fekk si fii tey di sëñ Modou di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yàggal ko fi. di jiital ci ñaan sëñ Mountakha mi nga xam te ne mooy xalifa général de Mouride. liggéey bi nag niñ ko baaxoo def bu weer yi feeñee muy safar ajuma ji ci njëkk lañu fi daan daje di ci liggéeyal sëriñ Touba. kon ñu ngi koy ñaanal loolu mu yàgg lool ci moom di ñaanal bépp jullit nag képp ku nu gis ñu xam ne ñun ci xasida rek lañuy dox képp ku am ci ñun cofeel bis boobu ñu ci woo ngir jëmmi Serigne Touba ñu daja fi ni mu ko bëggee ñu defale ko ko noonu ba déwénati jàpp benn nag fonk yëpp nañ jëfe ndigal bàyyi tere nañ defar suñ jikko yi ŋàbb suñ jukki yi jikko yi nag ñoo baaxut ci jikko yi jukki yi jukki yi baaxut jikko yi jikko yi baaxut ci jikko yi bari lool kon nag loolu nañ koy seetaat cay yenente jàmm yàlla defal nu santu ni ak nooru daari ni musal nu ci naari ni barkeb nooru daari ni ndigal loo xam ne sëñ Muntaxa moo ko jox mboolem julli si rawatina ak taalibe bi murid yi ci loolu tey ndigalu sëriñ si waa itam nag mu joxe woon joxel ko boppam moom la sëñ Muntaxa di yeesal yeesal googu mu koy yeesal di ko fàttali sëñ Moodu mii naka jëkk ci loolu la nekk bis bi nag da ko tànn di ci léegi sëriñ si def ko bisu xasida Sëriñ Tuubaa nag liggéeyam mooy xasaayid yi ndax xaadima rasul mooy garaat boo xam ni moom rek moo ko am te nee na xaadima rasul boobu ñu ngi ko amee ci xasaayidam yi bi xormatil Moustapha man surtout xaadimahu ci lan mu ni bin nazmi wa nasri sama way yi sama wees yi ci laa nekk xaadima rasul moo wax it ni bett gi ko xasid yi bett ñeent yi mu ko bette yéegu ko woon sax ñaan ne dafa jëkk xasida yi bett ko ñeent yooyu ñeent yooyu it yàlla noo ngi ñaan ci waxu sëñ bi ku ñëw ci bis ba ñeent yooyu yëpp daal dafa wax ni hudan wa nuurun wa yidan wa baraka faja ani fi mati faxidi mudrika njub ak ngërëmal yàlla ak leer ak barke dañu maa bett fekk maa ngi tëggante bi ci xasaay di kon ku ñëw ci bis ba ñeent yooyu jàpp ne da nga ko yóbbaale muy njub ak ngërëmal yàlla ak leer ak barke liggéey bi suñ moom suñ moom moom moom moom saa mi ngi ci lii nag day la muy yeesalaat rek bëgg ñëpp bokk ko ñëpp waaye moom mooy guddi mooy bëccëgam mooy mooy léppam euh, ndax ni mu nekkoon lépp sëñ bi sëñ moom xasaay yam yi dafay waan am daxahu am na fu ma naan ashkuruhu bi nazmi wa nizaami maa dumtu qaadiran alal kalaami feeg maa ngi mën a wax noonu suñu paa waxee dañuy feeg maa ngi mën a wax danaa ko danaa ko tagg danaa ko sant ci sama way yi ak sama mesar yi loolu rek mooy bés bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadou Lil Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di ñaanal sunu jëmm ji nga xam ne moo fi nekk tey jii di sëriñ Mouhamadou Abdourahmane Lo ibnu sëriñ Dame Lo Ngaabu di ko ñaanal sunu borom di mu fas yéene liggéey sëriñ Touba yàlla sottal lépp ci barke Cheikhul Khadim bu loolu jàllee itam ñu woote ci mboolem mbokk yi fi jaar. woote googu di bisu xasida bi nga xam ne moom la baaxoo defal sëriñ Touba fii ci Ngaabu war a doon ajjuma njëkk ci weeru safar ren itam war a dëppook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tubaab mu di ko yëgal mbooleem njabootu sëriñ Touba gi li ko tàmbalee ci seex Mouhamadul Moustapha ba ci seex Mouhamadou Mourtada li ko tàmbalee ci soxna Faat Ja ba ci soxna may mënatu soxraa di ko yëgal mbooleem seexi sëriñ Touba yi li ko tàmbalee kër sëriñ Adama Gueye ba ci sëriñ Madiba Silla mi jàpp ni moom la sëriñ bi mujjee seexal di ko yëgal mbooleem jëwriñi barab bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy daayira yi aju ci barab bi di daayira xidmatul xadim di dayre daayira muwaahibu naafix di dayre daayira jaalibatu maraaxib ànd liggéeyal borom Touba ak mbooleem daayira yi nga xam ne dañoo jëlee tur ci barab bi ñëpp mi ngi leen koy yëgal di ko yëgal mbooleem waajurim séqal barab bi di sëriñ Mouhamadou Moustapha Lo mi xalifa Cheikh Ibrahima Lo ak sëriñ Modou Lo mi xalifa soxna Mbène Ngaabu mi ngi leen koy yëgal bu baax sëriñ Bunaama Jóob itam mi ngi koy yëgal di jëwriñ ci barab bi nekk ca ndakaaru nekkoon jëwriñu sëriñ daam sëriñ daam boole woon ko sëriñ bi kon daal mi ngi koy yëgal képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mi ngi koy yëgal ñëpp bis bi nag bis la boo xam ne da koy def àllarbaam ci sëriñ Touba day wax ne ab taalibe bu nekk yore na àllarba ab sëriñam mu bëgg nag lépp nu fa yendoo jàng alxuraan ak xasida bu ngoonee ñu takk ko niw say jébbal ko sëriñ Touba te ñu dellu ñaanalaat sëriñ bi moom sëriñ Mouhamed Abdourahmane ba li mu fas liggéey sëriñ Touba lépp sotti wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu وجاتني ربي بالهالاه أبلياء أهود للبر رض لي كل من بار على النبي صلي بالتسليم بالكرامة warfa wa zidniya baada rafuhiya bukaara amin ya rabbal alamin